bisimila mbokk internet yi daleen ak jàmm ab soxna moo jàpp doomam ju jigéen ju am benn at nar koo faat muy lu yéeme lu doy waar foofule ca Médina ab tentative d'assassinat moom la ñu nemmeeku foofule ca cimetière abattoir bu Médina ca weti corniche ouest ba ab pensant maanaam ku doon jaar foofu moom moo nemmeeku mbir mi ba daldi koy mujj yoole loolu war a google assassinat mujjul antu ana naka la mbir mi demee yaayu xale bu jigéen bi mu ngi wuyoo ci turu Ndey Caam nekk ab divorcé maanaam koo xamante ne doon sëy ba tas waaye ba tey nekk itam ab kooba ndax kat dafa bokkoon ci ab gang kuréelu defkatu ñaawteef ak i agresseur moom soxna si nag dañu ko bett ca booru une heure du matin muy jéem a faat doomam ju jigéen ju ndaw ju am lu tolloo ko benn ab waay bu sant jàll te doon doxantu dëkke ca boor yooyu moom moo ko gis nemmeeku ko daal di koy faf boole yoon teg ko loxo moom yaayu xale bu jigéen bi gannaaw bi ñu ko tegee loxo jot nañ ko déféré au parquet bu ndakaaru njaay ba tey bu ñu sukkandikoo ci journal l'observateur moom yaayu xale bu jigéen bi mi ngi am lu tollook ñaar fukk ak juróom-ñeenti at wa mu doon jàkkaarloo ak way takk der ya waral mu bëggoon a faat doomam ju jigéen ji ndaw sa nee na moom ab SDF la maanaam sans domicile fixe nit koo xamante ne ni amul kër ci mbedd mi lay fanaan lu tolloog ñetti weer a ngi nii nee na ca palage ba lay fanaan maanaam géej ñàkk njàqare ak jaaxle lool moom moo ëpp boppam te xamul fenn fu mu jëm moom ak doomam ndaw si ci ay kàddoom di wax ne dañ ko bàyyee xale bi te yorin wa nekkul lu yomb moom daal xool na ba xool waaye mënul dundal xale bi mënu koo yor itam ca bés ba mu naroon a faat doomam ju jigéen ji ndaw si di nettali dafa demoon Medina ngir seeti kenn ci ay xaritam ca booru minuit ca la xale bu jigéen bi daal di nelaw mu fopp ko ànd ak moom ba ca corniche nee na ca foofa ca la am xel xalaat ak yéene faat xale bi cëy lii doy na waa daal bu doon ne ku mënta yor sa doom rek faat ko xanaa 12 millions de sénégalais yi moom danañu wàññeeku Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal